la ginnaaw bi mu amee jëkkër dafa am jëkkër jël recul ba pare nag daal di ëmb daal di say yokk li nga xam ne nag mooy appose moo Massane nee na nag jamono ji dellu si na ci li nga xam ne mooy musique bi fas yéene nag bëggal ñi nga xam ne ñooy ay fansam moom Massane daan nay wax ne mu ngi liggéey ci benn album yéene kaay gi nee na album boobee nag léegi tey mu génn yéene kaay gi dalee seko xëy di ñu xibaar naan ñu démb réseaux sociaux yu toj na ndax gaa yu bare bari ñoo doon bini di wax daan nay am doom am na doom ju góor Adji Sarr loole la ñu bare bari doon waxtaane ni ki nee na amul dara loo xamante ne dëgg la a loola lépp ay fenekk kàcc la aji saara musta am dooma musta bu sax bay am dooma yéen a gi de laas ak l'info xëy di ñu a naan ñu ñi nga xam ne ñoo impacté ci train express régional maanaam fi TER bi jaara ña fa nekkoon te ñu yëkk yëkkati na jamono ji na ñu ba maara détail yi sonn nañu lool ndax ñeenti at a ngi nii maanaam ñuy xaar état bu Sénégal ngir nag mu daal leen di ndàmp lu toll ci cinquante milliards te ba léegi ni France dali a kaay gi de enquête xëy séq waxtaan wu yaatu ak Mary Teuw Niane mi nga xam ne ay jamono moom la ñu dénkoon njàng mu kawe te jamono jii mu nekk président conseil d'administration bu Petrosen Mary Teuw Niane wax na ci élection locale yi nee na du Macky Sall ci boppam mooy tànn kan mooy nekk maire bu Saint-Louis moom Mary Teuw Niane daan nay wax ne dàqul benn alliance naka yéen kay gi di Sud Quotidien nee na coalition Ousmane Sonko Karim Wade Khalifa Sall ak Serigne Moustapha Sy coalition la boo xam ne ñu bari ci opposition bi ñoo ngi koy ŋàññee waaye nag niru na ab coalition boo xamante ni daal gars yi waxtaane nañu ko def nañu seeni mathématique ci lu jëm ci wàllum politique politique maanaam xalaat nañ si bu baax a baax doo koo jëmmal yéen a kaay gi délibération ak ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu am na benn gaal boo xam ne yeboon na ay nit bëgg leen a yóbbu ca diiwaanu Espagne gaal googe nag dafa mujj tëmb ci ndox mi ci diiwaanu Saint-Louis am na lu toll ci fukk ak juróom ñaar yoo xam ne ñàkk ñu ci seen bakkan am na lu toll si ñeent fukk ak benn yoo xam ne dañoo réer maanaam dañoo disparaître ba léegi nii kenn gisule na dañoo na mër yéen a kaay gi na lu toll ci cinquante-huit candidat la ñu woon yéen a kaay gi délibération xëy duñu xibaar naan ñu Dieynaba Balde ak ak magam ji ñoom ñaar jël nañu leen yóbbu nañu leen te kasu ndax ñaar ñi li ñu leen di toppee mooy lu jëm ci wàllum sàcc ba pare jël alalu jàmbur yàq alalu jàmbur wàllum chantage bëgg ronq xaalis nit ba pare bëgg sulli mbootu jàmbur yéen kaay gi di vox populi nee na ñi nga xam ne ñoo doon joué cirque noir ca diwaanu Mbuur ñoo ñee àtte nañu leen niki démb waaye nag soo moytuwulee danañu leen tëj lu toll si ñaari ati kaso yéen kaay gi di l'observateur ak vox populi nee na ndax yéen a ngi fàttaliku crèche Chigogne Bleue bi nga xam ne am na benn xale bu fa faatu woon ci novembre atum 2020 ndax yéen a ngi koy fàttali ko xale boobee nga xamante ni moo faatoo nag enquête bi ndekee ba léegi ma ngi doon wéy moo tax directrice bu Siguñ Bëla mandat nañ ko dépôt ndax dañoo jàpp ne dafa laale ca faatu xale boobee yéen a kaay gi di Les ñëw na ci xeex bi nga xam ne moo amoon fan yi ñu génn ci militant yi Amadou Diarra maire bu Pikine Nord ak Thierno Alassane Sall yéen a kaay gi nee na xeex boobee nag ca yoon la mujj teeree ji ki nga xam ne mooy chef protocole bu Amadou Diarra mandat nañ ko dépôt ni ki démb yéen a kaay gi di instant xëy wax ci lu jëm ci wàllum afrobasket bi nee na équipe nationale bu Sénégal gagné nañ niki démb ñi nga xam ne ñooy Soudan du Sud moo tax Sénégal ma nga ca quart de finale ya mondial si équipe nationale bu Sénégal tey jii lay football demi-finale digganteem ak Japon bu 13h30 jotee journal bi nee na équipe bu Sénégal beach soccer bi jamono ji ma buntu finale bi yéen a gi di record xëy duñu xibaar naan ñu Premier tey jii Liverpool bu Sadio Mané dana 2024 Aliou Cissé daan nay fësal li sub ñaar fukk ak juróoma ci ay joueur waaye nag dafa jàppe Diao Baldé Keita ak Mbaye Diagne gi xëy wax ci mercato bi njëdd ak njaayum jour mi yéenekaay gi nee na Cristiano Ronaldo mi nga xam ne ñu bare bari jàppoon nañ ne Manchester City lay dema da leen a mujjee njuuya dem Manchester United yéenekaay gi nee na Cristiano Ronaldo daan nay dellu si ci équipe bi nga xam ne fa la doore ay mbiram fa la fële di Manchester United yéenekaay gi nee na fukki at ak ñaar ginnaaw ba mu fa bawoo delluwaat na fa